xew na fi kii nag mooy Arona Sarr muy coach Alioune Seye 2 démb bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko toogal siège wala ñoo ko naroon toogal siège te yàlla suñu borom dogalu ko coach maa lay nuyu. waaw maa leen di fay waa wasaare waaw neel entraîneur écurie Waalo rek parce que bu nee entraîneur écurie Waalo ñëpp ci lañ bokk. Lirou mi ci la bokk Alioune Seye ci la bokk Ladege ci la bokk ñeneen ak ñeneen ci xale ci lañ bokk waaw xam waaw boo sant yàlla comme ñu ngi rafetlu seen teewaay xam nga lii mooy liggéey journaliste làmb am na xam nga mu am nu mu demee ngeen déplacé ñëw pour am information information bi ngeen amoon nag di ngeen am ñu leen koy laaj ñu wax leen ko waaw rafetlu nañ ko merci jërëjëf. problème bi démb noo ko noo ko gisee ci ci ci làmb ji. waaw problème bi mooy li may wax nee naa nee naa nee naa nee naa dañ tooñ parce que ñun équipe bu mag lañ yor. doo yor sa benn nekk si koñ mi am si dayale sa ñaari booy ñetti booy xam la kilifa new fa yéen dem ngeen ëppoon presse ñaq dem ngeen entraînement ñaq mais da xam ne fii am nag ay responsable la ànd ak ay kilifa làmb day baax ngay ànd ay responsable ànd ak ay kilifa mais xam nga ànd ak ay xale man nee la man ci biir géej bi taxaw na ñaq jëriñu saaga ma ndey. yow tamit barki Serigne Babacar lu mu la waatal Serigne Babacar Sy takkal téere lu mu la waatal Serigne Babacar Sy laa wax ne takkal téere Serigne Babacar Sy rek laa bëgg. lu mu la ci waatal takkal téere li nga wax bi taxaw naa ci biir géew moom mu saaga ma ndey mais waxuma ko dara ma xam ne làmb ji tey du làmb lu mu mën a def rek garaawul man mën nga wax lépp mais doo ma dóor ma bàyyi mu sedd ko ma ne garaawul kon nag moom dafa dafa ñëw dem dem ñëw ñëwoon pour ñëw ñëwoon pour yàq dafa ñëwoon pour yàq biñ booy di njëkk am problème sotti nañ ko sunguf ñëw sotti ko ay gerte caaf mais su fekkee làmb da nga préparé ne yow jekk nga li denc ko mu nekk sa bopp nga jëm préparé wu. Alioune Seye gisoo ko ne dañ ko teg ci yoon fi mu war a taxawlee taxaw fi war a duggee lay duggee xam na xam la bu ñax a nekkee ne moom mu nekk ne kon ñun xam na ni làmb ji bëre daan mu ñeen indi woon dem mais kon moom su jokkale du doxalee noonu di indi ay booy ñu cat ay sunga fak sotti ay ay ay sawa kon dafa ñëw pour yàq dafa ñëw pour yàq loolu kenn rafetlu ko. gaañu gaañu Alioune bi bokk nga ci ñi ko njëkk a gis ndax maa ngi lay séen bi Alioune di replié wu di ñëw ci cim di dellu si séen nga ko ba sotti ci ndox waaye dama mel ni da ngaa jàppoon ni ci biir bëñ bi la rek du du lu garaaw. waaw parce que booy bi gis nga booy bi ñaq dafa gis nga booy bi butéel bi ñaq dana ko delloo butéel bi mu ne waat beneen butéel ñaq na ko téel butéel bi. ñoom ñaar ñi ngi yëngu de ci la baay bàyyi ba booy bi ba kee dem booy bi jël bu jël mel ni lu set sangor ñëw sotti ko ko mais mba li nga yor sotti ko sa bopp li nga ko sa bopp mais kon su fekkee da nga ñëw sotti kon yow yow yow yow da nga ñëw pour yàq xam la ñaq jëriñ nag mooy li may wax yàq tooñ maanaam ñëpp la tooñ quoi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp la tooñ parce que tey ñun Alioune Seye dama dë yabuñu xam la bay dem di jël ay gars di ko sotti nit Alioune Seye dama dë ko xam ci loo xamee ceero nga ko xamee tey baax li mu yor di ko bokk ak booy Alioune Seye numéro 2 day ñëw salle ba fekk booy entraînement bari mu yëkkati xaalis am may leen Alioune Seye numéro 2 ak booy matin booy jóge entraînement amuñu ndékki mu yëkkati xaalis dem fayal leen ñoo ñëpp ñu ndékki xam la kooku kon du ko yàq mais bésam bi bu ko suñu borom dogal ñëpp waa ko ñëpp dëkk ñëpp génn xam la ñu dem booy bi ñëw yàq suñu laamu ci dara yoo xam ne vraiment loolu neexul quoi neexul neexul ci xol ma toog gis monsieur le ministre mu toog ci kaw Matar Ba ma gis Alioune Sarr toog ci kaw ma am lu ma gën a métti rek ba ñëwee ba jàkkaarloo monsieur le ministre ci làmb ak nu mu bëggee gis moom moo leen ko won moo leen ko ji mais ñax jëm li mu def démb kenn rafetlu ko li sa waay di wax rek wax dëgg de yàlla xam ne démb ñax jëm dafa ñëw pour yàq suñu dafa ñëw pour yàq làmb ci waaw parce que physiquement boo xoolee entraîneur nga xam ne kii pare na teg nañ na entraîné na xam na ay kilifa te macha allah danga xam ne kii làmb ji làmbam la. wax dëgg li ma ci jaaxal mooy ñetti kilifa wax nañ ko Alioune Seye numéro 2 kilifa la Lac de Guiers 2 kilifa la yow kilifa la ñëpp nee nañ même chose ñaq jariñu saaga nañ ma mais saaga yi mu leen di saaga yow ak Lac de Guiers ci làmb ji xëy na sax bu doon du ko wax Alioune Seye dañ naan du ko bëgg a déstabiliser merloo ko ba tax mu ko mais saaga yéen bokkul ci lam bokkul ci lam bokkul ci làmb man Alioune Seye 2 Alioune bay taxaw sax mu naan day yéeme saaga saaga ñaq ñaq jariñu mais man taxaw naa ci biir géej bi xoolal mu saaga ko ñëw man. man ak Alioune Seye numéro 2 yëgoowuñu man ak man ak Lac de Guiers yëgoowuñu xam la man ak man ak ñu yëgu ñu ñett yëgoowuñu xam la kon li wax ni mooy la man sama doom sax doo ko saaga barke Serigne Babacar man saaga xaw ma ko bi ma saaga nag am naa lu ma metti trop parce que nit ki ak lamb lu mu métti day jeex mais xam nga nit da war a yaru parce que nit ki loo loo xamul doo ko wax moom noonu la mel li mu xam lay wax xam la loo xamul doo ko wax ku xamul saaga xamul saaga mais loo xamul doo ko wax moom li mu da koo xam moo tax mu def ko suñ ko taboon làmb yu du egg mais ñun dañu xam ne làmb làmb ji dañu ñëw pour bëre si xam nga jox suñu suñu suñ suñuy naw lañ jox leen tër xam ne ñun làmb ji bëre daan rek lañ soxla soxla leneen lu mu ne ko gérer mais mu demee ba xam nag fii la sës ñu ñëw yàq lamb jay dara yoo xam ne vraiment loolu. ci lamb jékki-jékki amaat détail bi ci lamb est-ce que bokkul luy yàq. équipe bu mag du def lii di mooy li mu la wax tey a déconné mais équipe bu ndaw dëgg ma da ngay ñëw caaro yi gis benn koñ. ay ay ñetti booy génn ñeenti booy béy ñu nekk su ma kon tey écrit bu mag la xam la écrit bu mag bu dee ko écrit bu mag la yéen écrit gars yi dañuy waxtaan woo booy woo booy woo booy woo booy woo booy woo booy ñoo waxtaan parce que ñun ñun balaa ñoom balaa combat balaa ñoom entraîné booy yëpp lañ dajale ñu toog waxtaan ñaax booy vendredi amul entraînement dañ ñëw toog waxtaan ak ñëpp ñu toog salle toog waxtaan ak ñaax booy xam la nii lañ demee lam nii ak nii mais ñaxa jone su ko àndoon ay mag duñ ko bàyyi mais ñaxa jone kan la àndal benn responsable ñi ma àndal ñëpp ay borom ko téye mais day ay kilifa ay responsable tey la dëgg tey boo gisee ñu ma àndal yëpp tey waa waa waa waay yëpp génn Lac de Guiers génn Abdou Diouf génn Lirou Diane génn ay ñoom Ablaye Wade génn nañ doublage ñoom ñëpp génn nañ xam la mais kon ki ñuy ànd ay kilifa père moso moso si ñëw na la mais su fekkee day ànd ak ay kilifa ànd ak ay kenn ay morom nga àndal ay booy booy yoo xam da nga daj ay booy xam ay bande lañ xam nga xamuñ ay sans sax seen bopp bay respecté keneen mais su ko ànd ay écrit wala mu ne écrit bu mag lii am du ñoom mais ñi ñi nga xam ne ñu làmb ji boo xam ne ay dañuy mandi boo xam ne duñu ay responsable ñëw ci làmb lu mel ni rek mooy mais su ko kon am nag ay kilifa dëgg dëgg kon du demee ni jërëjëf merci du jaan ndeysaan sarax ba Alioune Seye yor démb bi mujj moom moo ko ko jox gis naa ko mbuus bu ñuul la am na lu mu def waaye ma ngay wuy téléphone liiru ndeysaan démb rakkam moo xew yanu na ko gunge na ko nee na ànd naag moom Gambie ànd naag moom Casamance ànd naag moom kawlak ànd naag moom fu ne moog Alioune numéro 2. kuy laaj rek boo laajee liiru jaan jaadu na liiru maa ngi lay nuyu. maa lay ziar waaw sax démb démb am nga lu lu la métti ci làmb ji. ndax yaakaar naa ne waajee woo ko woon nii te indi woo woon sa rakk loolu pour mu pour loolu dal xam nga lan moo ma gën a metti démb ci làmb démb ci Alioune ni mu waajee bis bi at ñi ni mu ko waajee ak fi mu teg bis bi ñun tam fi mu teg bis bi ndax Alioune waroon dépassé fii làmb moo tër rek waaye Alioune Seye du moromu moom ñàkk sax waruñoo bëre. billaahi wallaahi taala moo ñaq ñoo bëre waruñoo bëre xëy la euh, yàlla lu mu def na xëy loolu moo gën waaye soo xooleen bisu démb bii bii bii xam ne Alioune pare na ñun pare nan ñoom na xëy na dañoo pare lu woon moo tax ñu jóg pour yàq làmb ji waaye mën na ñëw ñu bëre ci fo ah Alioune Seye daan ko ñu dem ñibbi ñun lan lañ jël décision ñun dun xe stade bi ñoo ko moom gis na boo supporter bi ñu dem dañoo dox. ful bi xoolal ful bi nekkoon stade démb Alioune Seye li mu mobilisé dem koñ bi ñëpp ngeen ndax xale yi ñoo ko yéene xale yi ñoo ko yéene ndax dafa baax xol bee rafet du tàngam lu dem ci xale yi ah di sonn man démb li ma gën a jooyloo li sama sama xol fees mënu ma koo xool bi ñu ko gaañee bi ñu ko gaañee mënu ma koo xool ndax sama xol bu fees ndax dama xam li mu daj ci làmb ji. at li muy daj ci man coono bi muy daj ci man loolu moom ma metti démb billaahi wallaahi wataalaahi barki sëriñ Saaliw Mbàkke làmb li mu jaraloon démb moo bari te démb ñun Alioune ñun suñu ci àndul woon démb bakkan mën na rot ci stade bi démb bakkan mën na rot ci stade bi démb ndax am na ñoo xam ne ñun ñoo leen di jéem a di leen jéem a kalmu te su boobaa ñun la ñuy wax ñun yoruñu écurie bu ndaw écurie bu mag lan yor écurie bu mag lan bu bu mag lan yor comprendre nga loolu moo ñu metti démb ci làmb ji prépare sa combat taxaw di sottee sooy galaaj benn nit jóge fee rek kenn xamul fu mu jóge rek ñëw xëpp la xëpp la saw kenn xamul lu mu la xëpp lu xëpp xen xunn ah bëgg yàq say galaaj bëgg a yàq sa làmb hmm? loolu kese loolu moo nu metti démb man loolu moo ma metti démb ci làmb ji loolu moo ma jooyloo. ngay calmer xale yu bari am na ci koo xamante ni da ko daaneel sax di ko di ko jéem a calmer. Modou Sarr la mooy ndax su ma ko téewul woon xam ne kenn ndax ñoo gis de Alioune Seye dara itam di génn te bëriwul mënuñoo gis loolu mënuñoo gis xale yi dem may la bakkan seen bakkan sax mooy noonu ko joxe démb ndax lan li li ñu def pour yàq làmb ji loolu moo ma metti démb loolu moom ma metti ci làmb ji loolu moom metti man li làmb ji amul ah li làmb ji amul metti na ma waaye gaañ bi nga ay sëy moo ma gën a metti pourquoi loolu moo ma gën a metti man. ñaq nee na yàlla xale lay faral parce que Alioune Seye daa xale bi xale bi dóor ko mu toj. ban xale ban xale la Alioune Seye saaga. na xale bi ko sotti jàllale Alioune moo ko saaga. waxul dëgg. waxul dëgg image yaa ngi fi sa journaliste bu nekkul saytaane di waxkatu dëgg dangay wax dëgg ndax gis nga image yi yow ah, Alioune Seye ngi taxaw di sottee ko galaan booy bi jóp ko tourné rek xëpp ko affaire bi Alioune dóor ko pourquoi pourquoi loolu pour lan la CNG te yow ñoom dañ koy yebal booy bi dañ koy yebal ñàkk moo ko yebal ñàkk moo ko yebal mu xëpp ko ko ñàkk moo ko xam na xam na ñoom ñoom ñoom làmb ji dem moomuñu ko ñoom xam nañ ñi dem làmb ji moomuñu ko Alioune Seye préparé combat am daj ci ay coono lu ne sonn ah guddeeg bëccëg nekk ci entraînement yi ah yow ñëw ba ci benn jour benn ko ci combat bi dem ba arbitre waat suuf la Alioune pare booy bi daal def li mu koy def ñun loolu moo nu metti démb ñun loolu moo nu metti démb ci làmb ji at li làmb ji amul at li Alioune Seye mobilisé démb ni xale yi génne supporters yi génn ah xam nga ne Alioune lii li mu mobilisé démb dañ nañ koo mobilisé. li nu mobilisé démb gën ñu ko xoolal stade bi démb dafa fees at lu mel ne bisu père Khadim Samb ah, mu jóg pour jàppale xale yi. na day feete jubileem ah booy daal di ñëw di def nii pour yàq làmb ji ah te taxaw na tagg xale yi tagg tagg leen gërëm leen ah booy daal sa signature ba tagg na leen gërëm leen ah ndax li Alioune Seye nangu wàcc bëre spécial loolu mu tagg li ko gërëm ci Alioune Seye musta yàq làmb Alioune Seye xamul lu yàq làmb Alioune Seye dañ ko yar ci dañ ko yar dañ ko yar dañ ko yar Alioune Seye dañ ko yor ndax xolam bu rafet moom yor jikkoy mbër sax yoru ko billaahi wallaahi ta jikkoy mbër sax yoru ko ah jikkoy mbër yoru ko ah ñu koy def lu mel nii affaire daf ñu metti ñu daf ñu touché loolu moo ñu metti. liiru démb bi nga tëddee nelaw nga ndax yow rek laa doon xalaat xam naa ne sa rakk ji niñ ko def nee naa liiru jaan ku ko tàpp tàppaloon guddi gi nelawul benn yow. léegi la léegi laa yeew damaa biddanti ci fajar laa tëdd ci fa dama tëdd tey mënumaa fajar gi laa tëdd mënumaa nelaw waaye nag yàlla baax na li ci kanam moo tax Alioune Seye xale la xale bu ndaw la tollagul fu muy amee fu muy ñàkkee waaw li xañ na nag yàlla lu mu def rek xañ ne am na lu mu loolu moo gën. avance ñaq bu duggaatoon ci kër gi ngeen jël ko. ñax Alioune Seye moo ko doon may saas léegi Alioune Seye bëreetul ak moom. Ah, da ngeen a daw Mbadou. lu ñuy daw ci moom. Ah, damaa xam ne ñax. waaw lan la ñuy daw ci moom. Ah, ñax li mu lay def démb. lan lan lañ def. ooy non déglu ma. wuyu ma bàyyi sa affaire yi ngay def. lan laa def non non non non non non. sama xol sama yaram neexul bàyyi sa li ngay def. non non non non non non non lan mooy euh, Aliou ñax la lan la ñax la lan. démb ci làmb ji gis nga lan la lan moo xew. damaa ragal da ngeen di bañ mu gën a pire rek moo tax. lan mooy piir xaw ma yow booy gis nga yow barki sëriñ Bamba seytaane nga naaf fekk saytaane bi nga. naaf tey moom sa xol neexul balay jëfal bu baax. waaw ok merci waa ji waaw merci jërëjëf. boobu laa doon xaar. Boy Niang numéro 2 maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay di la di nuyu axlu làmb di nuyu ñëpp di baalu nag li am démb waaw. gis naa nga jooy sama yaram daw ngay jooy comme xale buy jooy. non dama xam ne Alioune Seye loolu mérito wu ko quoi li am démb. moom bëre daan rek la mérito woon démb te ñun démb loolu la moo ñu indi woon waaye nag suñ borom mooy dogalee nii xëy na mënoon naa daan tamit xama du du du du du ñibbisi leneen ak leneen mënoon naa comme que ñun ñu ngi koy gis nii rek alhamdulilah xam ni xama làmb tamit xama moo baaxoo nii rek waaw noonu la fa demee. bi mu gaañoo lan mooy sa réaction bi mu gaañoo sama réaction mooy affaire bett ma rek comme ni mu bettee ñëpp fooguñu woon loolu si làmb ji làmb ji ñun ñun luñ gisoon parce que ñun Alioune daf ñoo yeb daf ñoo yeb avant ñuy dem stade dañuy tay bëgguma kenn xuloo bëgguma kenn xeex bëgguma kenn def lenn ñu ñu ñun nag comme que combat bi dañ ko bëgg ñu bëggale ko loolu mu wax def loolu ku xool Alioune Seye démb xam ne indiwul daray violence Alioune ndam rek la indi woon ñëw daan ñàkk jariñu demaat ñibbi loolu la indi woon mais nag nit moom xam nga soo dajee koo xamante ni yaruwul tamit xam dina def loolu war ta def quoi noonu la fa demee waaw. ñaq nee na bi bi bi problème bi amee daa daw dugg ci suufu versaire yow yaa daw fekk ko fa di ko dóor te nee na yéen ñaar bu ngeen wéetoon ci mbedd bu la waxee lekkal nga lekk. waaw. waaw ah moo. ma seetaanee wasaare làmb ñoo ko jëli démb ci guddi mu wax ko. non man ñàkk jariñ su waxee loolu loolu amul parce que man dama am licence aw ma accès dugg ci géew bi. waruma dugg si géew bi. nee na bi mu dawee génn ci biti Alioune Seye nee na Alioune dafa yor ban topp ko mu gis ful bi mu daw dugg ci suuf vaisselle fi mu dugg nee na amul génnukaay nee na boobu Alioune Seye sa sànni na dóor na ko ban bi mais yow da nga ñëw di ko dóor mais nee na dóor bi nga ko dóor yow bu fekkoon da ngeen a wéet yéen ñaar bu la waxoon jàddal nga jàdd mais waroo ko woon dóor. non man Alioune Seye man bi affaire bi amee rek dama jooy automatiquement mais dama ñëw pour téye Alioune Seye pour xam ne Alioune bu bu noppalu woon bu toogoon foofu rek bu amul woon benn réaction bu am rek Alioune Seye su toogee mën na ñëw bëre man loolu laa doon carte quoi moo tax man ci Alioune Seye la ñàkk jariñ su waxee la boobu talu ko sax boobu sa Alioune Seye laa doon jëm pour mu kii mais nag Alioune boobu mer na munu téye boppam xam nga def loo xamante ni waa fournir énergie bu bëri ma xam ne kii mënatul bëre mais boobu su teeyoon boobu su fekkoon Alioune Seye dañ ko bàyyi ci ak sagoom rek su toogee mën na ñëw daan ñaq. kon yow li ñaq ne da nga ko dóor kon dàq nga lool. non ñaq dama gis si làmb sax ba di ko dóor foofu ci géew bi dama mën a gis ñaq mënu ma fa gis ñaq man dama am combat mënu ma dugg ci mënu du aw ma accès waa CNG bërët lañ na ma amoo accès yow dugg ci géew bi. waxuma ci digg bi. enceinte bi nee na ci biti xam nga ñaq nee na dañ ko topp mu daw. génn bi mu dawee génn da doon waaj a génn stade bi mais bi muy génn stade fi mu jaar du génnukaay nee na foofu ngeen ko fekk man loolu laa bëgg nga wax ci. non non yow nga ni gis nga ma ci géew may jooy kuy jooy jëm ci Alioune Seye kay mënul dem di xeexi loolu kay xama kon superman laa wala ñaq jariñ daal li ma koy wax mooy yàq na réputation am quoi nu mu yàqee réputation man su ma nekkoon fëleen su ma nekkoon beneen écurie Alioune Seye di bëreeg man dinaa ko jox cër maal ko ba bëreeg moom parce que Alioune dafa bëreeg Modou Lo Alioune Seye dafa bëreeg ay ndaanaan su ma dee ba mu nangu ma may sens man dina ko wormaal jox ko cër ba nga xamante ni xam lu ma lax su bis baa man lu su bis baa nag lu ci war ma def ko mais du ma du ma dund ak nii Alioune Seye parce que ñàkk jariñu man ragal naa ne man pour mu bëre waat ak beneen mbër dina jafe trop. te yàlla dimbali ko ne ko woon bu ko Alioune Seye daanoo nit dina génn ci dina dina dina yéegaat beneen escalier boo xamante ni xam nga lu ma lax dina am faneen fu mu ko yóbbu ci làmb mais yàq na ko ñàkk jariñu mbër yu mag yi kenn dootu ci may sens mbër yi nii wax mbër yu mag lañ kenn dootu ko ci may sens parce que ni mu dundee dara baaxu si. laaj naa Alioune ci biir waxam mu ne ma maa ngi ñàkk jariñu moom c'est fini ay milliards du ma bëree mais ci signature la njëkk a wane affaire réewante su la may sens man de su ma nit mayee sens dinaa la tar dinaa la dinaa su ma toogee dinaa koy wax dinaa koy jëfe jox la cër mais su arbitre sifflé nag ma ñëw indi li ma war a indi mais ñàkk jariñ deful loolu ñàkk jariñu bi Alioune Seye la pare ci làmb ji ñun ay mbër lañ billaahi wallaahi wa taala bi jaa sumeekoo moom la pare ci làmb ji la xam ni carrément moom moo doon moom xale la yow ñàkk jariñ dafa indi état boo xamante ni mën na daan kenn foofu Alioune bi mu sumeekoo ñàkk jariñu xam na ni kii mën taam dara tey billaahi wallaahi wa taalaay tey jii man su ma ñëwee ci sama làmb sama bis ñi may àndal ñi yor sama entourage laa leen xamal tey bëgguma kenn xuloo bu dee gëm nga sa bopp da naan tey bëgguma bëgguma xuloo bëgg comme ni Alioune def Alioune Seye dañ ñoo taaj ñun ñu war dem làmb ji mu ne billaahi ku fa xulo ma bala ku fa xeex ma bala ku fa tuure ndox ma bala ku fa def dara ma bala avant ñuy dem regroupement ñoom roon toog waxtaan mais kon ça veut dire que mooy écurie écurie ak ak genre écurie ak genre écurie bokkul ñàkk jariñu gisuma kenn ko topp koo xamante ni mën na ko wax déet mu bàyyi wala jafal mu def gisuma ko man de su mbër mu mag ma essence dinaa la jox cër fuñ toog dinaa koy wax dinaa lay kii xam lu ma la est-ce que jàppoon ni ñàkk jariñu comme génn na ci Alioune Seye Alioune du bëreeg moom bu duggaatee géejawaay waa géejawaay pare nañ pour jël ñàkk jariñu non ñàkk jariñu bii bëri géejawaay fii nii man rek la fi bëreel wala Alioune Seye junior waaw Alioune moom dootul bëreeteeg ñàkk ci àdduna bàyyi na ko. yow moom yaa ngi euh, gumbatal na leneen du dóobiteen yaa ngi ci beneen am. sama bis bu soobee yàlla dinañ bëre man ak moom. dafa am loo xamante ni gor du ko def gor soo lekkee avance jàmbur te ñemewoo ki ngay bëreel nga nga nga bañ a lekk avance kooku Alioune Seye bu mu sumee ñun ay mbër lañ ku ci nekk xam nañ mbër mi ruux ak mbër mu ruux ñàkk jariñu ba Alioune Seye sumee koo tawatul sax nekk caay bagaasam dafa xam ni yab na buñ bëre woon démb moom mu xam ni pomme de moromu new waaw.